wa na bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu. yéen bokki Touba Treviso gépp yéen bokki waa Weneto ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di jiital ci nuyoo bi si Amadou mun taxa ko ñaanal wér gu ànd ak gudd fan. bu ngeen see jataay bii day wale na dañuy waajal bi bisub soxna jaara di ngontam ñu war koo def fii ci Touba Treviso la 4 mai incha allah ca santalu cee lañ koy defee di woo nit ñi 3 heures incha allah bu 23 heures jotee liggéey bi mat nu yewi ko. Mbàkke Saliou Seck mooy ki nga xam ne moom mooy jàng guddi gi kon ñu ngi soñ soññi ñëpp di nuyu ñëpp kon bala maa sori ma jox kàddu gi ki nga xam ne moo jiite commission culturelle muy sëñ Alaaji Gaye bu noppee mu jox kàddu gi sëñ Omar Diaw mi nga xam ne moo jiite organisation bu noppee ñu doog jàll nag ci soxna maam bu sa ñoom ñu yeggale kaddu yi buñ paree ñu doog a tëj bisimilah sëñ Alaaji asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha sunu borom yàggal ko fi tam wér te naal yi mu naal war koo liggéeyal Cheikhul Khadim sunu borom def mu eggale ko ak sagoom ak ñun taalibe yëpp ginnaaw ba li loolu bi bu ngeen gisee jataay bi moo jataay bi nga xam ne baaxoon nañu ko def muy ngontu maam Jaara mi nga xam ne Touba télévision da koy def chaque année ren ji mu war a tombé la 4 mois de mai incha allah tombé ñaar fukki fan ci weeru korite gi kon ñu ngi ci woo ñëpp di ci woo képp ku wax asadu an laa ilaha illallah wa asadu anna muhammad rasulullah ñu ngi ñaan it sunu borom tabaraka wa taala mu yóbbu ñu ci ak jàmm te lépp lu ci waay mën ci lu baax muy xeeti xibaadaat yi nga xam ne moom la ñuy jagleel ku fi jóge muy soxna Awa Bousso nga xam ne moom moo ñu indil kii di seexul xadim ñu ngi santaane njàngam alquran ak salaatu ala nabi lu ci waay man istigfaar suratul ixlaas lu ci waay man ci lu baax loo xam ne dana jëriñ nit ku fi nekkut nañ ko def jëmale ko ci bis boobu su bés boobaa lu mu toll ñu xam ne lii lañ defal soxna si tey yéen a ko bokkam yëpp ak ku dib jullit ñu ngi ci woo ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant di leen baalu àq te leen balaax di ñaan sax ba mu defal tawfeex ba liggéey bii ñu liggéeyal sëriñ bi ñu amee ci lu kawe suñu njort barke borom Tuubaa tam neex loolu sëriñ bi gannaaw loolu ñu ngi leen di yëgal ngontum soxna jaare mi ñuy amal fii ci Touba Télévision tombeek la kat ne incha allah rabbi fële ci Santa Lucia ñi ngi ciy woo ñëpp képp koo xamante ne yaa ngi ci gox bi nii ak li génn gox bi ñi ngi la ciy woo ñi ngi ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo féete ahlul xidma euh, di ko tàmbalee ci Baye Fallou Dem Serigne Aliou Diop Baye Mamadou Signane ak ñi nga xam si ñoom ñoo topp ci ginnaaw ñëpp ñi ngi leen ciy woo bu ko defee ñu waaj baax a baax baax ci liggéey bi moo xam ci wàllu alal ak ci wàllu doole lépp rek euh, ñi ngi soññee bu baax a baax nag liggéey bi na mu daan doxe rek lay doxee amul benn changement te ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax te képp koo xamante ni liggéey maanaam ngir liggéey maanaam ngir bis ba jàkk moo la fay indi ñu ngi lay woo ci koo xamante ni xëy na da ngaa ñëw ngir di eh, def naka wala xëy na di yàqal ñuy liggéey su boobaa mën ngaa dem ca saal ba toog xaar ñu incha allahu kon ñu ngi koy fàttali ñëpp di soññee tamit ci addiye nga xamante ni moom lañ ci laaj képp koo xam ne suñu borom mën loo na la ko na nga ko jox ñi nga xam si ñoo koy laaj euh, bi ci topp mooy ñi ngi ci woo képp koo xam ne da nga yëngu ci ahlul euh, ci ci kuréel yi muy ci kuréel Ponte di Piave kuréel Sacile ak euh, kuréel yi nga xam si ñoom ñoom ñoo war gox bi rek bu ko defee ñu ñëw ànd ak ñun bés bi incha allahu rabbi kon ñu ngi leen koy fàttali yéen ñëpp rek di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa yi ñu ngi leen di ziar fi ñu daan ziar di ñu daan nuyoo di balu àq ñëpp di baal ñëpp àq di ñaan di ziare ñëpp ñu kenn bu ngeen gisee suñu jotaay bi nag xel yëpp dinañ dem ci liñ fi daan dajale muy màggalu maam jaara Bousso gi nga xam ne dañ koy def at mu nekk fii ci Touba Treviso ren gi ñu jàpp ko la 4 mai incha allah ci salle bi ñu ko daan defee fii ci sant lu ci bu soobee yàlla ñu ciy woo nag képp ku naan ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ngi la ciy woo fàttewuñu benn daayira daayira maam jaara yëpp ñu ngi lay ñu ngi leen di woo section section section yëpp ñu ngi leen di woo mm, daayira Marème Diop daayira Assu Diop daayira Ngoone bu Treviso daayira waa Sàccli ñoom ñëpp soxna Xadi Naar Caam jiite ko ñoom ñëpp ñu leen di soññu di leen woo ci bis bi xam ne bis bi suñu bis la ñun ñëpp ñoo ko bokk amul xàjj ak seen di ñaan suñu borom yàlla nañ koy yóbbu ci jàmm ak salaam ñu dugg ci ak bisimilahi rahmaani génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin te lépp luñ fa ñaan suñu borom nangul ñu ko mayaat ñu fekkee ko at yu bare bare bare te rafetu bu di soññ rek suñu càmmiñ ñi nga xam ne ñoom lañ ko bokkan ñii di suñuy baay ñii di suñuy nijaay ak suñuy rakk ñi nekk ci daayira bi daayira xale yu tuut tànk yi ak waa Kanzul Muhtadina ñoom itam ñoo ngi leen di soññ bu baax rek niñ ki daan jàppee rek nag ñëpp jàpp ku ci nekk rek na jàpp ne yëf yi sa yëf la buñ ko defee rek lépp dina baax incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum mbokki julli di mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu gën a sa tur ak sa sant naa bu ngeen gisee suñu jotaay bi rek xam ne liñ fi daa xew rek moo xewaat ñuy soññ ñëpp ci màggal bu naan jaarab sa bi ñoo ngi ci woo murit tiijaan xaadim soose joolaa tukkulóor bàyyiwul kenn képp kuy jullit rek di woy asadu an laa ilaha illallah ñoo ngi la ci woo di soññe ca waañ wa waañ wa ñoo ci soññ jigéen ñi ñëpp bàyyiwul kenn ak suñu doom yi ñu ko àndal liggéey bi xale yu jigéen ñi xale yu góor yi bàyyiwul kenn nan ngeen ko ci jaa jàppee rek na ko ci jàppee na lépp baax incha allah bu demee ba ca saal ba itam suñu mbokk yi ci sama bopp laa koy commencé ñun jigéen ñi ñoo woote nañ ànd ak yar ànd ak teggin sol sol gu yiw sol gu yiw na jot ndaxte kat ki ñuy wooteel bu solul li yiw kat tey jigéen bu egsi woon ah nan fexe ba mun solee bu ñëwee dañ saase suñ toogaay na sol yi jot musóor yi na baax kol yi nan moom daal macha allah ñoo ngi woon ñëpp bàyyi woon kenn kenn kenn noppi leen noppi leen ji nag moom ñoo ngi ñaan ci ngir yàlla di ko dagaan ci maam jaar bu sa ni tax ñu woote na ñëpp déglu waaye woo nit ñi ne naan nopp leen nopp leen loolu daal moom gàcc la ca tàmm nañ ko nag maa ngi jéglu ñëpp di baal ak ñëpp tey baal ak ñëpp asalaamaaleykum aousubillahi mina sheytan rahim mbokk yi leen di nuyu te ziar te ci kàddu yi di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mbégte murid yi suñu borom yàggal ko fi lool te wér ba naal bi na laan na la liggéey maam ji tedd ji suñu borom yàggal ko fi loolu te wér ci barke borom Baxdaad boo leen gisee jotaay bi nag dara waral ko lu dul waajal euh, cant soxna jaaratullaay ma Mariam ki nga xam ni moo di waajur bu jigéen ci kii di Cheikh Amadou am Xaadim Rasul suñu yaakaar tey ak ëllëg bis bi nag moo ngi dëpp koog le 4 mai 2024 ci Saalu Santa Lucia bi di soññ sama mbokkutu tànk ci colin gi ak muuru gu jot itam ndax ki nga xam ni moom la ñuy màggal ca bis ba kenn mu mësta gis wala kenn mësta dégg mu sol loo xam ni euh, demeewul noonu wala muuraay gi jotul itam di leen wax itam bis bu ñu àggee ca bis ba nañ teew teewlu ba nga xam ni duñ fa jóge bu ñu jógee ca bis ba ku nekk ci ñun gën a fa jële am njàngat di woo ñëpp bàyyiwuñu kenn woote baa ngoog maaleykum salaam wa rahmatullaahi taala wa barakaatu kon jërë jëf kon daa mel ne Euh, dégg ngeen kàddu yi nga xam ne moo tukkee ci jëwriñ soxna maam sa Niang ak soxna Khady ak ki nga xam ne ñooy waa Kansul Muhtadin ak mboolam seen bokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal dayra soxna jaara mooy ñi féete sëcc lii ñi féete Ponte Piave ñi féete Treviso ñoom ñëpp woo lañ waaye woo dayra maam Fade Wele bi yëpp nga xam ne ñoom itam ñoo ñoom ñoo bokk liggéey bi nga xam ne liggéey bi liggéey bi suñu borom la waaye ñu ngi woo itam mboolom ñi nga xam ne ñoo aju ci fédération Touba Treviso yëpp ci góor ñi kenn ku nekk dayre ba nga nekk ñi ngi lay wax ne li nga xam ne wax nañ ko kon ñu ngi leen koy soññi tey bàyyi ñëpp bàyyi ci xel te waajal ko euh, di sant baax di gërëm di wax ne fa ñuy defee liggéey bi mooy Santa Lucia ci saal bi nga xam ne fa lañ màggale woon saal boobu fa la ñuy defee cant gi 3 heures lay ubbi 23 heures incha allah mu liggéey bi mat ñu ñaan man a yewi ko kon nu ngi nuyu ñëpp di jaare ñëpp di ñaan yàlla nu yegg ci ci jàmm tàmbale ko ci bisimillahi rahmani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu